saraax la ñuy def ci xew-xewu lamb tey fekk fa sunu papa Gaston le Don King de l'arène may wone di fësal ak leeral combat ya muy engagé moom super calafam boobee planifié na ko ba mu mat sëkk bëggul benn détail bu ko ko yàqal du ci wàllu combinaison combat ya mu def du ci wàllu kase ku ko nar a tardel yàqal ko ay journée mu ne la fi ñukk ni yàq bu naqari mbooleem amateur yi doon réclamé diggante Balla Gaye ak Boy moom père Gaston wax na ca lu leer nañ mu bëgg taxawal combat bi ni mel waaye lam ca xamle mooy Boy Niang 2 bu dee day laaj kase bu bari fii laa ko naan ñukk Boy Niang 2 ak Balla Gaye 2 lay xalaat diggante Balla Gaye 2 ak Gris Bordeaux ci revanche ba plan A ba mooy Balla Gaye 2 bëreeg Boy Niang 2 plan B ba mooy revanche su Balla Gaye 2 ak Gris Bordeaux moom bëggul dara lu ko yàggal bëggul lenn lu xajamal plan Boy Niang bu bëggee na réclamer kase bu raisonnable bu fi nekkee di seeral dama ko fi naan ñu ko dem seeti Gris Bordeaux rax ca dolli ne nañu xam ne man bàyyeer laa may tëgg samay combat aw ma fixation ci ko man damay wax combat bi ma bëgg waaye mbër mu ciy ma yàqal sama plan rax ca dolli ne diggante Eumeu Sène ak Bombardier foofu waxtaan nañ ba juboo muy kaamu Bombardier di kaamu Eumeu ñoom ñëpp conclure na ak ñoom waxtaan na ak ñoom ba trouver terrain d'entente leen rek moo ca des joxe avance jàpp date lanjaa may porte parole bu écritay si nga moo ca ne tonn dëggal kàddu Gaston ya ne man mi maag Eumeu Sène ñoo demoon kër Gaston àllarba bi ñu génn ca guddi ga lañ waxtaan liñ doon waxtaane ba mu jeex tàkk Gaston na ak ñun ba ñu d'accord a jàpp mooy combat Eumeu Sène ak Bombardier taxaw na ndax Bombardier xaarut kon tafaatin mi bu amul sens dëgg dana bokk ci mbër ñuy zappe tafaatin ma fi bàyyi Reug Reug di tànn Gris Bordeaux Eumeu Sène Balla Gaye wala Bombardier boo moytuwut du am lu ko neex Olof Njaay nag waxoon na fi ne tànnkat yi daal ci ay carax lay mujje bu dee Balla Gaye numéro 2 moom it tànn ca bu la neex la nar a def ngi taxaw ne moom la bëgg a bëreel revanche am lay jël si Boy Niang 2 moom it moom la bëgg a bëreel ku ko may sens lay wut ñaar ñooñu ñoo taxaw ci kanamam moom Balla Gaye 2 njort nañ ne faaw mu tànn ci kenn diggante ñeenti mbër yooyee nag am nañ ci combinaison combat yu neex Balla Gaye 2 bu jëlee Boy Niang 2 Gris ñaari choix lay am bëri ak Tapha Tine wala ak Lac de bu Balla Gaye 2 jëlee Gris Bordeaux Boy Niang ñaari choix lay am bëri ak Tapha Tine wala waaye beneen combat jànq ba combat jinne ba gannaaw Boy Niang 2 daa dugg cour des grands Lac de Guiers 2 freiné ko rëg-rëg bëgg a dugg te benn ténor nangu ko jël ñoom ñaar ñi nekk ci bunt bi bu ñu bëree ku daan dugg loolu dara du ko dàq jërë ngeen jëf mbokk yi li ma nekkoon li gën a fës ci ëttu yéenekaay bi ñu jox dig daje ba ëllëg incha allah